Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. waxi Khalifa Sall man du ma ci wax parce que justice wax na ca lam wax ba pare waxi Karim aussi du ma ci wax parce que Karim Wade àtte nañ ko gracier nañ ko dem na aw yoonam jooju wax vraiment man du ma ci aw ma lu ma ci wax. mais mais ba tey ci wàllu parrainage bi tamit ndax nee nga penc ma ndax penc ma fa la ñu amalee waxtaan ak yooyu noonu. Hmm. te ñoom gis nañ ne ba tey ay njaw mi ngi ci des suñu xam bi ci la ci ban xam bi. Euh, jàpp ni ne parrainage bi daal ak euh, euh, xëy na peut labaj lay ku njiit réew mi bëgg a la première fois Sénégal di ko am laajal candidature indépendant yi fi nekkoon dañ doon def parrainage. ba ci bërki dem seen nawle boobu ñuy wax Tunkare bi mu bëggee bokk ci élection législative yi dafa wuti ñu ko parrainé ñu parrainé ko plus de trente mille trente mille voix alors que amul sax plus fort reste pour dugg assemblée. affaire parrainage ça n'a rien à voir avec vote parce que xam nga parrainage moom yow bu ma la xamee man nga ma parraineel wax sa waa kër ñu parraineel ma mais est-ce que man ngay voteel présidentiel affaire candidature présidentielle moo dul affaire réew moo dul affaire bu ndaw ndax gis nañ ni am na fi election yoo xamante ni bi mu jàllee en 2007 en 2000 en 2000 en 2007 am na ci candidat yoo xamante ni ca lañ leen mujj gis dañoo exilier parce que eh, mënatuñoo nekk ci réew mi ndax ay njuuj njaaj lañu la ñu demee woon ca élection ya est-ce que tey ñooñu dinañ leen dinañu leen permettre ñu mel noonu di dugg ci biir réew mi ba ñu di leen jox suñu réew xam nga affaire u réew dadul affaire bu ndaw buñ koy laaj dañ koy teg ci lu sérieux am na ci ñoo xamante ni tudd nañ leen ci affaire corruption am na ci ñoo xam ne génn nañ réew mi gisatuñu leen am na ci ñoo xam ne génnuñu réew mi waaye ku nekk xam na ni jóbuñu beneen bi nga xamante ni moo ci des mooy li ñu dund en 2007 ci législative yi ñun ñaanatuñu yàlla dund ko nga xam ni bu dul woon ak décision bi conseil constitutionnel jël que de 1 à cinq mën nañ faa yem ça dépend ci ni nga ko bëggee kon élection yooyu ñuy wax ni dafa dafa baaxul. kon dadul sax nekk ay élection parce que 47 liste la kenn munut a jël di c'est-à-dire il faut ñu teg mbir mi ci aw yoon beneen bi ci des mooy 300 et quelques partis jëm 400 partis c'est pas du sérieux mënuñu am démocratie baraw États-Unis mënuñu ko am baraw France te it nag bu fekkee ne da ngay créer parti pour def ni ñi fi ne. les sociaux ñoo fi ne sociaux démocrates yi libéral yi socialistes yi communistes yi maoïstes sa xay na amatul am na ba pare da ngay dugg ci parti yi ñu créer nga xeex pour am sa place loolu moo normal mais bu dee créer parti pour pour négocier créer parti pour deal créer parti pour jaay ko boo demee élection bu ne deuxième tour am na nga daw négocier ju ñu delloo la sa caution dig la poste ministre wala ñu dig la poste yooyu dafa war a jeex di créer parti di ko loué doo bokk sax ca liste ba parce que ñu bëri di dem élection législative sax parti yi nga xamante ni moom la ñuy jël di ko demee du ñoom ñoo ko moom bu local ñëwee parti yi nga xam ni moom la indépendant yi di di di di utiliser pour bañ a dem wuti ku leen parrainé du ñoom ñoo ko sax moom borom parti bi sax du ci bokk parti boo xam ni kenn toppul ci sa ginnaaw ñooñu dëgg-dëgg nañ waxante dëgg gis nga am réew caaxaan du ko doxal te kenn wërta encouragé kuy fooye am réew parce que am réew duy caaxaan. mais waxtaan bi nga. Euh, démocratie bi yooyu ñoom dañuy waxtaan benn mbir te gis nañ ni ngeen waxtaanee ci wàllum parrainage bi ba ci vote ba ci assemblée. du question parenage rek du parrainage rek waxtaan am na waxtaan waxtaanati xanaa waxtaan moom am na ndax keroog ba ñu génnee ci législative yi opposition bi ñaxtu ni baaxul président daal la oote laxtaan ña bëgg a dem dem nañu wuy ña bëggul a dem demuñu le président de la république dama ko naw parce que moom du dox ci chantage kenn mënu koo chantage waaw. ba tey ci assemblée nationale boobu yow député nga ko euh, te tey jii euh, gis nañu ne par exemple wala bokk yaa ngi ci euh, coalition benn bokk yaakaar yaa ngi jiite à trois juillet. Euh, tey jii euh, euh, Aminata Tall def nañ ko tabaat nañ ko mu nekkaat ci njiitu kuréel googu di conseil économique social et environnemental. ñu doon ngañ ji wax beneen soxna boo xam ne mu ngi si seen kuréel bu mag googu di coalition bi ngir mu nekk fa ndax dogal bi njiitu mi jëlaat ndax bett na la wala. déedéet mosuma bett mosuma bett parce que période bi ñu ne du période teg ak bi ñu ne mooy période ñoom li ñu doon def. loolu ñuy def nit ñi naaw leen ci mooy di fésal di fésal liggéeyu le président de la république nañu continuer ci lancé boobu di yaatal consolider li fi ne mais ñu amplifier nekkuñu ci jamonoy tekk ak teggi xam nga jamono yi lu ñu ne dama dama dama dañ ma yónnee benn kii di ma di di wax président ñu def ni président mu ni wax mu ni mu ni sama combat la du combaam combat président de la république du combaam combaam la ñun dama ni 2019 du combaam suñu combat la xam nga nit ki nga allié def ko président de la république ñii mu def leen ni ministre ñii mu def leen ni directeur ñii mu ànd ak ñoom wuti def leen ay député ñu delloowaat député yi ñu delloowaat la ca mu ànd ak yow def ca énergie def ca dooleem def ca temps pour nga falu moom bu soxlaa da def ni moom. nañu defoon 2012 ba fal ko ñun noonu la ñuy defaat ba fal ko combat bi du combat ñun suñu combat la foofu laay tàggu toog yow <laughs> ñoo ngi leen di tàggu di leen encourager di leen di leen di leen encourager vraiment euh, ay ay ay ay jeunes ngeen yoo xamante ni ñu jara encourager ngeen ñu jara accompagner ngeen euh, parce que tamit euh, yombul fenn mais quand gis nañ ni li ngeen di def bëgg ngeen ko malgré les maigres moyens yi nga xamante ni des fois moom ngeen di yor mais loolu mooy li am solo li am solo mooy fekk fu dara newul nga fexe ba def fa dara ngeen xam ni les PDC yi ngeen di dégg tey ñu yor ay ay ay groupe média yu réeréeréy mën naa am bi ngeen di commencé sax li ngeen am ñoom amuñu ko woon kon man dama leen di féliciter dama leen di encourager dama bëgg ndaw lu gëm boppam te xam ni réew mi nag kenn du ñëw diñ ko liggéeyal waaye yéen ñi yéen a koy liggéeyal seen bopp jërëjëf merci ñu koy jaajëfal moo nekkoon émission